asalaamaaleykum. nuyu di leen ziare yéen a ngi ànd ak sang bu sekk ñu gën kaa min ki sekk ak mos mi di wax na ñu ngi nii ci buntu armeelu Touba yu mag yi di bëggee taxaw Moustapha Mbaye ñu gën kaa min ci Mbaye Sapar mbooloo mi nag ñu ngi nii bëri na lool jànkatu suñu xadim ngay gis nañ ko fi léegi jànkatu xasida mag bi ak kuréelkat yi extaraxee Baye ñëpp ñëw nañ ñu ngi nii ci kanam jumaa ji jumaa jaa ngi nii suñu gannaaw ne ko ñëpp ñaanal ndax Mbaye wax dëggal bëggal na Sénégalais yëpp waaw na ko ñëpp ñaanal suñu borom defal ko ak njégal ak mbay ba tey ñoom ñaar ñi ngi waxtaan loo leen di waxtaan yéen ñaar. ndeysaan sekk nag yàgg naa koo xam. yàgg naa ko xam. muy nit koo xani ku baax la. ñu ngeen koy gisee nii. jàng na tarbiya wu na def na lépp. muy nit ku baax. nekk marché occas di daan doole di liggéey. ni ma ko waxee ci muus mi. ku nangoo liggéey la. moo waral mu yar ay xeteek ay pitax ak yëpp lépp bañ ko ko yàpp war na Serigne Touba man lu ma xam rek laay seere ci doomu aadama mais nit ku baax nga nii ku am jàmm ak ñëpp tubarkalla seet yàlla la yàlla defal jàmm danga libéré sama muus mi <laughs> waaw mbay ñu ngi koy ziar bu baax moom sama waay la sama xarit la ay at a ngi nii ma koy suivre bu baax muy génn sama at man mbay moom maa ko lu mu def du ma raw lu mu def rek du ma raw man ma TikTok bu moo duggee rek <laughs> c'est passe mbay laa jëm ndax da ngay rek <laughs> nit ki yàlla baaxal la waaye nag xam naa dugg na ci loo xam ne du ci ah, génn parce que moosi ma mënu ko défendre da nga jàpp loxo ci <laughs> poos ko défendre loxo ci poos lañ ko jàpp jàpp ko loxo ci poos asalaamaaleykum wa rahmatullah sama soppeek sama am di jàmm yëpp maa ngi leen siyaare baax di leen jox seen wàccuwaay di leen jéggalu nag ndax wax dëgg yàlla bu ma sañoon chaque jour dama leen di bégal danaa def sama carrière ba mu jeex te kenn du ci déggalu la naqar yi waaye jaam ak pexeem yàlla ak dogalam maa ngi leen di siyaare baax di jéggalu dama ne woon sax jërul moo koy wax kenn waaye nag ndagam daa àgg fenn fi moom naa leen ko wax rek ba lu ci waay dégg xam ne nii la deme dëgg yàlla maa ngi jéggalu ñëpp bi ma yëkkatee Modou yaay jeebi foofu benn ngénte ma demoon la démb garab googu garab gi ma toog ne gis ngeen ko garab ga naat la wax dëgg yàlla bu sedd guy falaa ko doon yëkkatee waaye borom kër ga daa dem ci sàndarma bi lindi boobu daal ne ko ah, garab ga dafa ruus dafa ruus daal maanaam garab ga dafa ba jeex tàkk xam naa sama noonu fa jaar rek ndax man wax dëgg yàlla eh, eh, jàng njàng ma sa yàggut wax dëgg yàlla bay ruusalu garab waaye nag nit moom fépp fooy doxee rek am nga ay noonu waaw ndax am na booy bu ma dégg xawma njaayloo la xamuma njaayloo mu naan mbay duñ la may nga jàng moodu yaay jee bi moom rek mën na faa jaar felet garab ga mën na koo felet ba pare ne man miilo waaye nag yàlla baax na suba daal laa war a dem mari Ndindi boobu leeral leen lépp maa ngi jéggulu ñëpp nag maa ngi jéggulu ñëpp jërë ngeen